soxna Maymunatu Soxra nag mooy doomi Sëriñ Tuubaa la mooy am caatam ci jigéen ñi mu tudde ko soxna may mu mag mee lu doon wax moom it muy wax jaan na fi doomi soxna baaxoo jaar jàngal nañ ko alxuraan ba mu wattu ko bind kaamil jébbal ko Seex Mustafaa ndax yàlla dogal na ab kaamilam fekk fi Sëriñ Tuubaa Cheikh Moustapha moo ko toqi moo tax ay waayam sax danga nga ciy dégg lu bari maanaam Cheikh Moustapha noonu na ma Cheikh Moustapha noonu na ma da nga dégg ci ay lu bari mu di ko wax nee na man yeex na maa xam ne si Modou Moustapha ñoo bokk bàyyi ndax nee nañ dañu daan jox suñu mosaan dem dañuy dañuy teral jox ñu lekk ba suur su ndax soo mu jox ñu mbubb nañu fomp leen ci seen taalibe bàyyi laa ñu naan suñu taalibe baay bi daal moo baax rek ndeke boobu ñoom ñoo bokk baay loolu day woon ndoomi Sëriñ Tuubaa kon niñ mel ñoom niñ bëggantee nga ne kenn nekk da jàppee sa sa morom ni sa jëmm mbaa mu gën la sa jëmm digga may leetu xadar nag dafa xëy day bu ko Sëriñ Tuubaa séddi rek benn bis rek ci ak nga xam ne boobu doon mag noona boo Cheikh Cheikh Modou moo fi nekk Sëriñ Modou Sa jóge na fi mu am yéene yi dundal guddi gi wut ñett mu wut ñetti ganaar booba lool la lool la tolloo lool la am mu togg ko dem jébbal ko Cheikh Mahamadul Fadil ci guddi gi guddi gi Laylatul Qadr ci la ko ñaanal ne ko nag dana dem ba ba kay su danga dem ba di ci rendee gileem taw lool lool nag lool nag lu wér-wér loolu dem ba am la ñetti ñetti ginaaram yooyee moom la Cheikh Bassirou Sarr di di wate di ci guddi Laylatul Qadr di di di ko jébbal nga xam ne genn ginaar gu nekk rek jur na jur na junniy ginaar ñetti ginaar yooyu mu joxoon Sëñ Abdou Fadal mu ñor ko lool nga xam ne lépp lu mu am rek ci laytu xadar lu ko jëme di ko dundal di ko dundal doomi Sëñ Tuubaa yëpp xam ko ca lool jàppale ko ca loola mooy fàttali ko Sëñ Saaliw da ca daan ñëw Cheikh Mahamadou Mouta di fa ñëw loolu Sëriñ Tuubaa yëpp di fa ñëw di di di di ko ndokkeel si bis bi di ko ànd ak moom di ko ci jàppale it mu def ko mbii bisam nga xam ne mooy lu mu am rek léppam ca la ci la ko jëme nga xam lu mu am lépp lu mu am rek néegu ko ca def daayira yi nga xam ne daayira ba xam ne saa bu ma weer ma sant weer ko ma sant ñu di ko daayira yu bari sosu daayira yu bari sosu ñu di ko jébbal lépp ca bis ba la koy def kon day wan ne kon xam te lépp na xam ngeen xam fi ko Sëriñ Tuubaa tegoon fi ko Sëriñ Tuubaa tegoon Sëriñ Tuubaa ko fonkoon laytu xadar ba def ci ay def na ci ab diwaan boo xam ne diwaanu laytu xadar nga xam ne xas yi mu fi yi mu fi def yëpp laytu xadar la ko la ko tënkee daa ko màggal ci nekkam daa ko fonk daa ko fonkal te kenn ku nekk da ngay xool bëggu Sëriñ Tuubaa nga di ko dàkk di ko def nga xam ne nag laytu xadar màggal bëggu Sëriñ Tuubaa la mu dàkk ko faaf di ko di ko fa màggal keneen dàkk leen ak keneen dàkk leen Sëñ Tuubaa ñi koy jëfal ñëpp kenn ku nekk ay bëggam ngay dàkk ku mënta matale yëpp na nga dàkk ca lenn def ca sa lépp fonk ko man man caami man caami la nga bëgg lépp moom nag guddi googu la tànn te guddi googu sunu Boroom nee na xayru min xayru fii laylatil qadr ne alxuraan ci guddi laylatul qadr lañ ko wàcc asamaan su mujj si féete ak àdduna ki ju layul xadar la ko jële la ko jële lawhul mahfuz indi ko foofa atte yaag yëpp lu ca mate wàcce jibril dem jël ca la tolloon loolu wàcce ko ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy laylatul xadar xayru moo moo gën junniy weer junniy weer mooy juróom-ñetti fukk ak ñett ak ñeenti weer 83 ans 4 mois mooy alfu shahr mooy junni weer xam ne ki ko màggal am nga mel nga ne ku dund lu toll noonu jaamu yàlla sun lépp te yàlla nangu ko màggal geen gi guddi nga am ca lu toll noonu loolu ci laytu xadr rek la am te yàlla mi nu bind moo ko wax tanasu malaykatu fii war ruux nee na dañ ci wàcc ànd ak jibril ci guddi googu wàcc ba ci ba ci àdduna biis ne rabbi min kulli amr di ñaanal jullit ñi deen waxal am ci seeni ñaan ba fajar ñu dellu salaamun hiya xatta matla il fajr nee ba fajar fenk na ñu delluwaat la tax jibril di wàcc ànd ak malaaka na kon loolu lu màgg la xam gim xam loolu nag moo taxoon mu jël léppoon def ko ci leen xadar moom soxna Maymuna as-Suxra yàlla na ko yàlla fayal njabootam gi nga xam ne ñoo fi des si Modou Mahfous ak i rakkam ak seen doom yàlla dëgëral leen kàtt na leen ba ñu àggale seen yéene waajur woowee te lu mu am rek ci aw mu bokk ak ñoom te bokk ak mboolem jullit yëpp ci barke Seexul Xadim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa